salaamaaleykum mbokk internet yi yéen a ngi si géejawaay info point com comme niñ leen koy defalee euh, yéen a ngi si émission en route vers la finale donc ñu ngi ñu ngi fii stade Amadou Barry comme niñ ko defee yeneen zone yi tey ñu ngi fii ni zone 3 donc ànd fekk euh, Moustapha bu Walidane Euh, ak ak Samba bu Ceddo bu AS Ceddo ñu nar a waxtaan si nan la ñuy préparer seen finalu zone 3 boobu final bu mag boobu waaw maa ngi fiy tey jii ni Stade du Barry ak sama confrère Laye Cissé ñu nar a waxtaanee donc euh, si nan la ñuy préparer final boobu. donc euh, waaw daan sama premier question mooy gannaaw ba nga présenté woo ba pare sama première question mooy. est-ce que mun nga ñu defal benn résumé bu ndaw yéen seen parcours fan ngeen jaar ba yegg si final bi ñuy préparé nii tey yéen ak waa Ceddo. salaamaaleykum maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha mbay di secrétaire général ASC Walidane euh, waaw final bi ñu ngi ko doon préparé depuis euh, compétition bi yëpp saison ren bi yëpp metti woon na trop trop trop trop ñoom premier match bi ñu démarré contre Gounass ñu am ci defeet mu metti woon lool deuxième match ñu am si match nul contre Maguedane un bi partout mu metti lool si suñ commune metti lool si suñu zone aussi parce que dem nañ ba gëmatuñu ndax yaakaaroon nañ ne dinañ toog euh, dirigeants yi ñoo dirigeants yi ñoo gëmoon seen bopp benn euh, comité directeur bi engagé wu looloo ñu may tey lii ñu am lépp avant tout nag ma war a remercier suñ président d'abord Gaye di remercier comité directeur bi yëpp Pambay Seydou Madja Samanar euh, Abdou Salam Babacar Seck kenn ci bàyyiwuñu kenn ci comité directeur ñu ngi remercier ñëpp d'abord avant ñu def dar parce que liguey bi yëpp tay buñu aggé final comité directeur AC Wal dal la ndax gaay gëmatu ñu woon amna na benn moment buñu ñu bo xamni kenn gëmatu ñu ndax yaakaaroon nañ ne dinañ tok yalla def suñu 3e match ñu gané ci AC Yego avec ben score bu grave grave grave ñu gagné ko 7 bi à 1 ci ñu dem 2e tour premier match ñu am ci l'AC Yego gi Gui était le champion de la zone 3 l'année passée Nous def ñu gagné ko deux ñu La deux éditions première édition métti lool ñu dem deuxième édition gagné ko avec la manière gagné ko ak gagné ko ak détermination ak engagement aussi euh, suñu demi-finale ñu am ci Magadan avec beaucoup de cartons rouges on a on a tout fait pour gagner le match ñu gagné ko avec une score de 3 buts à 2 juste ñu am finale nous avons ñaan yalla gagné ko nak ci ndam lu guy parce que daf ñu ka en 2011 ren avons gagné ñëw pour fay quoi avant tout ñaa ngi remercier comité directeur bi yëpp ak képp kuy jàpp ci ASC Walidane ñu ngi lay remercier di wax ngeen gën a jàpp parce que final lañ jëm te final bi ñu jëm daf ñoo yittee lool lool lool lool lool lool bàyyiwuñu kenn ñëpp nag képp ku dëkk ci Walidane ñu ngi lay woo ñu ngi lay wax final bi sa final la ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoom dund ñoom waali ñoom Mathia ñoom Sambanaar euh, Papa Boy Djiné ñëpp ñu ngi leen di woo ngeen préparé final bu baax comme ni ngeen préparé début bi ba waaw kooku nekkoon uh, Moustapha bu ASC Walidane donc uh, ñu ñëw si Samba bu ASC Ceddo dégg nga saa lu mu wax ak uh, parcours bi mu joxe yéen nag tamit ban parcours ngeen def ba yegg si fii ni final ni merci balaa may sori damay damay rafetlu invitation bi parce que si yoon la fekk mu liggéey ba wàcc ma foog nga dem stade dafa am benn émission booy tourné foofu yaa ko Walidane après sur le change je n'ai pas hésité di remercier waa Guédiawaye info parce que bon l'initiative bu rafet la parce que banlé bi bo xolé bo xol amul amul amul amul porteur de voix banlé bi banlé la rek dañ ko seetaan noonu noonu bo amé ay nit ñuy jóg pour di def ay ay djégo xam nga loolu affaire bu ñu wara rafet rafetlu bon ma ngi tudd Samba Gueye nek euh, trésorier ASC Ceddo saison 2018 en même temps nek délégué zone je suis le cinquième vice-président chargé des affaires hygiène et environnement en même temps ma nekk coordonnateur bon parcours CRD bi li ma si mën a wax mooy parcours bu bu extraordinaire la parce que ASC bi ñu ngi ko taxawal à une semaine du début na nawetaan dañuy dimanche avant ñuy clôturer démission yi dañ taxawal ASC bi moo tax boo xoolee quatre jours lañu entraîné avant suñu premier match ñu ñëw lakkale door ñu 1-0 Mais même pour que nous avons entraîné, il faut aussi reconnaître que la Calais a pratiqué le meilleur football dans cette zone depuis trois ans. Lors mom, nous sommes sportifs, après nous reconnaître l'ol. Après nous avons fait sur le deuxième match, nous avons essayé Djambar, nous avons mobilisation parce que derby là. Essayé Tchédo, essayé Djambar, nous avons classique aux zones. Nous avons fait 0-0, nous football match mais malheureusement, on n'a pas concrétisé nos occasions. Troisième match contre la Calais, on était dos au mur, contre Djalore, autant pour moi on devait gagner par deux buts minimum. Nous avons premier mi-temps, une démonstration de force, d'autre que 3-0, qualifié en tant que deuxième. Nous avons qualifié, nous avons en quart de finale, nous avons gagné. Nous ko gagné 25 minutes nous avons gagné 3-0 def relâchement mu dugal 2 buts ba dernière minute bi sax on a failli encaisser le troisième but mais la défense a tenu après affaire avons nag ñu am si ay demi-finale contre Gonan yu football match bu match wut kay defe naa fii ñëpp a koy rappelé wu sax ñu def 0-0 dem tiro bii ba croisé finalement laa ko mujjee gagné par 8 bi à 7. bon di remercier waa ASC bi ñëpp di remercier le président Demba Ndiaye di remercier Andaw ak les personnes de bonne volonté yi nga xam ne yëpp jàpp nañ ci ba ñu egg fii ak les dirigeants nawetaan moom soo ingrawul boo amee victoire balaa ngay wax kenn il faut remercier les dirigeants di remercier waa zone bi di féliciter tamit waa Walidane parce que ñoom bi def nañ traverser du désert bu metti daaw premier tour lañ tok rek ñu ñëw bi ñuy départ kenn xaar leen woon comme ci dañu am ñu ñëw ba final bon di leen ñaan di leen ñaan devant les caméras nak que final bi ñu jouer ko ci sportivité ak fair play ku ñu gagné nga nangu ku ñu gagné nga respecter sa adversaire après nga faire sa fête, mu jeex bon di fàttali ne tamit dooroon nako 89 final 2-1 door ko 2011 final 2-1.

donc est ce que euh, esprit vengeance ngeen ñëw wala waaw dañoo ñëw esprit yëpp ñëw nañ esprit vengeance d'abord abord ñëw pour fay ñoo ñëw pour gañe ko te dañoo nekk ci yoon mëna né ren suñu année la dañoo ñëw pour gañe te incha allah bu neexee yàlla ASC do dañ koy gañe waaw parce que boudé tous les moyens ñu ngi ci boudé boudé équipe rek moy maye nam je pense que dinañ am nam bu dee solidarité rek mooy maye ndam je pense que dinañ am ndam bu dee mobilisation mooy maye ndam dinañ am ndam lépp loo xam ne rek boo ko defee di nga may di nga am ndam ñu ngi kii incha allah donc sa biir wax sànq sa explication seen parcours dama la dégg sànq nga ne seen demi finale bi da ngeen am ay ay yu bari donc est ce aussi du leen pénaliser seen finale bi. non mënuñoo pénaliser à 100 pour cent parce que ñun suñu recrutement post bu ñu jël jéem nañ ko doubler. nañ ko parce ñun yoruñu équipe boo xam ne dañoo ñëw pour taqale nii nii nii nii bu doon lool kon duñu as si dañoo dañoo am équipe bu baax am ay joueurs yu baax euh, poste bu jël dañ ko doublé pour pour pour pour en cas de en parce que da ngay da ngay am si équipe dem ba benn moment équipe yi ñaan nga yàlla joueurs yi dem championnat wala dem hivernal wala dara ñaata joueurs lañ am ñu dem hivernal te on a essayé de le gérer jusqu'à ce kon on pense que ne du loolu moo ñuy contre ceddo Et ak ceddo bi ñu gis du loolu moo ñuy jaaxal voilà donc mu ñëw ci Samba donc boo déggee euh, Moustapha li mu wax avez que ni en 2011 da nga leen 2-1 donc est ce que ni ngeen en 2011 est ce que vous ngeen di ñëwaatee. Wow comme avant avant 2011 j'avais un peu rappelé l'histoire parce que 89 maa gagné une finale de 1 après 89 pour 2011 22 ans la moom l'a gagné ci diggante 22 ans yi perte ci ay final yu bëri bëri bëri ma xolé 89 kon m'a ko gagné woon moo toog 22 ans ma gagné wat ko même score loolu du esprit de vengeance mais je suis venu pour marquer l'histoire parce que j'avais commencé l'histoire avec lui j'ai réécrit l'histoire avec lui et j'essaie j'avais essayé essayer de continuer l'histoire avec lui. Mm-hmm. waaw man so question bi mooy dañuy dugg carrément ci final bi mooy par rapport ak final bi nan ngeen koy préparer sur tous les plans sportifs mobilisation loolu laa bëgg ngeen wax ko les internautes ku ci nekk mu wax ko donc Samb ñu ngi lay laaj waa Ceddo nan la ñuy préparer final bi ñoog daan comme que daan day ñëw pour pour pour pour pour 2-1 yi nga ko dóoroon mu fayu ko donc nan ngeen préparer final bi ak mobilisation bi nan ngeen koy préparer. waaw question boobu na ma ciy sawar a tontu parce que boo nekkee dirigeant ñu woo la ni lan ngay préparer final bi je pense que ni waroo waroo da nga war wax nit ñi wax bu leer bi ñu gagné demi finale le mercredi le le vendredi vendredi ou mercredi j'ai oublié dañoo def réunion ñu ne léegi dañuy tëral un emploi du temps tuddee ko en route vers la finale comme le nom de l'émission ñu léegi dañuy cotiser confectionner ay t-shirt parce que final t-shirt mooy charme

set setal bi sax dimanche bii la te maa ngi leen di invité bu fekkee mën ngeen fa ñëw même bu dee benn cinq minutes sax ça me fera plaisir dinañ set setal koñ bi peinture suñuy couleur traditionnelle bleu blanc takk les drapeaux koñ bi ñëpp génn ñu tëgg asiko mu neex après li ci des nag concentration rek la laaj ak may ñaan yàlla mu mbay ñu nam waaw Moustapha dégg nga euh, Samba lu mu wax que ñoom niñ koy préparé sur tous les plans par rapport ak plan bi ñu def yëpp ak set setal takk drapeau yi yéen nan ngeen di final bi aussi sur tous les plans. ok sur tous les plans ñun ni ñuy préparé suñ final comme moom wax na ko nee na ñoom dimanche dañuy feetu def seen i asiko affaire yooyu je pense que yàlla ñu feetu seen feetu bu ñuy feetu dimanche mu yom fa ñun après final bi ñun la ñuy feetu bu neexee yàlla final euh, euh, ASC Walidane ASC bu mag la du ASC bu ndaw final dëgg la nag mérité nañ final moo tax ñu dem final ren mais du loo xam ne dañoo jaaxal wala dañoo tiital wala dara ak discrétion lañ préparé suñ final ak dal ak teey du dara loo xam ne rappi rappi la wala ay sabaru wala ay feetu wala lii lépp lu war nag ci match bi ñu ngi ci lépp lu war ci match bi ñu ngi koy def mais ñëwuñu pour euh, ne fa booy dinañ peinture koñ bi tout ce qui est décor dinañ ko def tout ce qui est charme bo xamné day neexal final wala day rafetal ñun ngi ci mais lepp lu ñuy def dal lañ koy defar tey lañ koy defar ak no violence aussi pas coow pas xëccoo pas bruit pas dara lepp lu ñuy def ñu ngi koy def ci dal diko wajal nank nank nak comité directeur bi réunir na waxtaan nañ euh tek nañ suñu projet yi nga xamné mom lañ préparer dem ci suñu final neexal yàlla waaw si kaw loolu gis nañ ñaari équipe yi ni ñuy préparer final bi donc Laye Cissé yow si kaw loolu loo si wax yow lan moo si sa wax. waaw li ma siy wax rek mooy que nii di rappeler que ni ñoom ñaari ASC yi ASC yi mag lañ quoi qu'on puisse dire parce que zone 3 dañu marqué seen empreinte muy wàlli daan ko muy Ceddo bokk nañ ci ASC yi nga xam te ni bëri nañ ñu jouer boo xoolee li ñu jiyee si final bëri ko surtout waali daan li mu perte si final moom kenn xamul nu mu toll boo aussi aussi ceddo aussi la même chose donc ñu war a jëm ci final bi nga xam te ni mën nañ jàpp ne daal géej waa yëpp koy xaar parce que ñaari équipe yi nga xam te ni dañoo xiifante dañu ñamante am nañ antécédent comme ni ko comme ni ko Samba waxee sànq joué nañ ay final Ceddo gagné ko donc fii mën na beneen ni waa Wally Dantec dinañ ko ñëwee euh, euh, mooy que ni ko dégg ci ay rouge yi mu doon wax affaire est-ce que loolu aussi def ngeen ko rek ñu dañuy ñëw jaar ci kaw on a été informé après le match que ni Wally daan am na deux ou trois rouges c'est pas bon loolu loolu boo yëgee ne sa adversaire mi ngi en infériorité numérique dañuy profitoo pour exploiter ses faiblesses bu fekkente ne parce que jaune moom loo si mënti wax ki football ba jël rouge moom lañ gën a yaakaar ki nekkoon ci banque parce que si c'était le cas kooku du fa toog xaar donc kiy dugg mën na dugg def lu ko ëpp mais kiy dugg tamit mën na dugg mooy performant ku fa nekkoon. léegi nag loolu benn instant tamit suñu avantage la on va voir comment gérer et comment l'exploiter. ci waa CEDDU encore une fois donc dañuy jàpp chaque jour ji ñu jaawale àndaw mooy président du président donc dañu bëggoon xam réellement àndaw lan la ci équipe CEDDU bi. àndaw àndaw moom lépp la si CEDDU àndaw mën naa ni CEDDU bu ñu ko doon personnifier mu nekk benn nit ragal naa ni bu ko nekkul dina ko jege torop torop torop ren sur le plan administratif Demba Ndiaye mooy président ASC CEDDU. mais Demba ak Andaw ay xarit lañ ànd bañ dalee ànd dafa yàgg du tey moo leen boole mais Demba Ndiaye moom mooy président Ceddo Andaw nag moom depuis 2012 la mujjee nekk président Ceddo mais président bu fi ñëw dina la jàppale ba équipe bi taxaw fu football def li mu def yëpp dinañ gaje duñ gaje nag loolu nag si loxo yàlla lañ ko teg. mais Demba Ndiaye moom mooy président ASC Ceddo. Safa léegi kii waa waa waa Ceddo sànq dañu leen dégg ñu ne ñoom ci côté mobilisation ak ci côté finance pare nañ maanaam ket bi ñuy def yéen naka ngeen naka ngeen di préparé ci côté finance est ce que pare nañ est ce que Waldaan réellement pare waaw ah, je que ku gis équipe bi Waldaan am ren doo laaj ba xam Waldaan pare nañ ci côté finance. je pense que bu ñu parewul woon ci côté finance duñ fi agsi fii nii nii nii nii te finance bi du ñun yoruñu équipe boo xam ne benn nit mooy ñëw naan lii wala lee. li ñuy def dafa barkeel parce que comité directeur bi ñëpp ciy jàpp depuis ba mu méttee ba léegi comité directeur bi lu waay am mooy ñëw indi ko di remercier passage Amadou gay sonn ci lool muy président ASC Walidane ñu ngi koy remercier bu baax a baax baax voilà donc est-ce que mën na jàpp tamit ne match bii ngeen jëmti match bi xam na ne match bu am intensité la match boo xam te ne ñëpp moom la ñuy xaar ci ci géejawaay naka ngeen di préparer match bi ci côté sensibilisation sur la non surtout parce que tamit quoi qu'on puisse ñaari ASC yi nga xamante ne xaw nañu miinante te tamit xiif nañ xiifante nañ daal ci côté euh, la sur la est-ce que naka ngeen ni sensibiliser seen i supporters. effectivement si non violence man je pense que ne ASC Walidane mooy équipe bi nga xam ne moo gën a fair play si nawetaan parce que imagine toi euh, ni ASC Walidane toll l'année passée suñ euh, suñ match ñu nag ASC Gounass trois bi la 3 la ñu dóor ñu ñu doon ñu defet bu metti ñu muñ. suñu président suñu dirigeant ñep ñew and ak suñu supporter nank dem ñibi ñu na guuy gi quatre la ñu guy ñu muñ and ak suñu supporter ñep dem ñu lolou tay boko ko yenen AC ku melni ni Ceddo wala ku melni ni Gunaas wala ku melni guuy gi day tas civil wala une violence met wal dan rek lañ fi door mu calme dal ñu dem ñibi nank lolou AC wal dan rek kam parce que parcours daw yeen ñep yeen ak yeen ñep fekke ngeen ko wala donc lolou Moustapha la ci toog bon meuna ni côté non violence mom ceddo ñu ko sensibiliser mais ñi dëkk ceddo ñom noy gën di dem di sensibiliser ñene parce que la première fois bi ma jëlé micro bi li ma njëkk wax moy ma ngi leen di woo si non violence ak respect ak fair play bo xolé archive jaune depuis bi nawetaan commencé am ba légui ceddo catégorie lañ ko formé mais lu mu jël trophée meilleur supporter mo ëpp fouf ko li ko jëlul te bo défé enquête ñan na la ko nga dem ODK ak fenen do musa fek fuñu ñu la nee ceddo moo Mastel 2004 ñetti mbaa doon na ma fi 5 ma football ko ak dignité ba mu jeex 2013 bokku jom gagné na ma final départemental ma liy tëgg di tëgg ba seen supporters ñoom seen joueur waa bokku jom ñëw di fecc 2014 mën ak jógoo fii même chose mu ñëw dóor ma 2-0 ma tëggal ko mu fecc dem ñibbi 2016 mën ak lakkale même chose tellement affaire yooyu su ma ko bëggee rappelé sax day dem sax ba day day day day bëri am na équipe yu bëri yu nekk fii Guédiawaye muy ay notaire ak am match capital dañuy ñëw fay ñu waa supporter Thiodog pour ñu ñëw tëggal leen loolu moom subaa mën naa la ko ñaan bu la neexee def ci ay enquête boo defee bañ la Thiodog moo mus a yàq match tel wala Thiodog lañ fi amande parce que match bi yeggul yàlla ñu gañe final waaw loolu moo doon euh, euh, message yu ñaari ñaari équipe yi muy Ceddo ak Walidaan di woo ñëpp ñi nga xam ne ñooy ñëw si si si stade bi jour boobu ñu ñëw avec non violence ñu def ko fête bu rëy rëy rëy waaw donc émission bi mu ngi bëgg a jeex en route vers la finale tey ñu ngi woon Ceddo ak Walidaan donc waaw daan lan ngeen di tëjee si émission bi lan ngeen di tëjee tey. waaw di kontaan lool si waa Guédiawaye info parce que li ngeen def dafa rëy quoi. na nañ gis ay ASC yu préparer final ñu seet si leen woowuñ kon li dafa rëy te ngeen ni benn chaîne bu ne ci banlieue bi di promouvoir développement banlieue bi kontaan nañ ci lool di ñaan yalla sen site bi dem ba doon ay télé télé télé inshallah ok fit wow ñu jox waa Ceddo ñom lan lañuy ñuy lan moy sen dernier cadeau si émission bi wa xamna mun fi ma tijjee won lay rek di respecté di di di di félicité waa Guédiawaye info ba pare di rafetlu invitation bi encouragé samay dirigeants félicité ASC Walidane di wax ni que le meilleur gagne su ma neexee ma ni damay gagné mais dama ni que le meilleur gagne parce que man si sportif avant tout man football laay seetaan man football laay dund man dama yàgg seeraan football mu gagné ma ak ma gagné ko après ñuy dem ñibbi bu subaa dañuy ñëwaat si côté boobu damay gën a insister tamit ci respect ak fair play c'est la troisième fois nag ma koy cité waat di ñaan ñu ko si jàmm ku ma gañe après mu jeex mi dem bu déwénee ñu dajawaat fii di continuer di continuer même at di ñaan yàlla tamit di dem final Guédiawaye info di ñëw ba dañuy ñaan sax dootul sax nekk télé internet mais télé la bu ñuy teg ci ci ci onde RCN nit ñi di ko seetaan. waaw Moustapha dafa am loo si yokk. waaw li ma si yokk moom bariwul mooy ñun dañu ñaan yàlla gañe yàlla ñu yàlla may ndam. le 23 ci kaw ceddo di remercier comité directeur bi yépp commencé ko ci amadou gay madja sen pambay samanar seydou babakar sek euh, abdou salam moussa sey euh, papa ndjay président zone aussi ñëpp ñëpp ñëpp comité directeur bép man mi secrétaire waldaan aussi ñëpp ñu ngi leen remercier boy koñ bi ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp ñëpp ñu kenn gën leen a mobiliser wu gën leen sey japp euh, waldaan mobilisation bi mu def ren rafet na nañ ko continuer nii yéen ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn cat ba cat di remercier bu baax comité directeur ASC Walidane aussi. waaw ñu ngi woon fii stade Amadou Barry tey pour ñëw leen si seen émission en route vers la finale daan ak Ceddo ñoo fi tase woon pour la finale de zone 3 ma ànd seeg woon ak sama confrère muy Ablaye Cissé ak tamit euh, Moustapha ak Samba ñoom ñu fi ñëwoon teewal seen équipe donc Guédiawaye info di leen jox dig daje ba beneen yoon restez connecté sur guédiawayeinfo.com Merci.